jërëjëf mbokki amateur yi tay di dibeer premier décembre kan moo ñu fi ni Ndiaye production di bool bool bu mag boobu drapeau Kéba Kanté premier combat dox ci diggante Khassatany fédo sen ndajoor la Rapide fédo sen càmmoñ Fallou Ndiaye Doba. Laye Rapide moo jógee ci écurie bu mag boobu non di parcelle mbooloo ñaari mbër yaa ngi xeex. mel na ndey nga Fatou. waaw Khassatany ak la Rapide. dañuy xeex Laye Rapide door na. yoo Laye Rapide door na. Khassatany jël na coup. waaw xam nga bëre waaw mais dafa war a wàcc ay tànkam. moo tax xas daal di bëggoon bëggoon utiliser xeex bi. mais xas daal di dafa war a wàcc ay jëliñ ko. da ngay daanu xas daal di. eh bañ na. yaa ilaha illallah waaw benn yax la ah benn yax la. gis nga saw diis. loolu noo koy xamee benn yax rasu na de. sew diis la. rasu na de. xës dara yaa ngi door ci suuf. waaw xës dara yaa ngi door ci suuf. ah da xar jëppal. mais raay rapide na def na ank yee buur. waaw na teelu bëre bi. waaw na teelu bëre bi. xale yaa ngi bëre mu wéy daba. li nga wax rek xës di xës lan. xës dadi. xës dadi xës dadi. yàq la. benn yàq la sew diis la. nuru na ko. benn yàq la. nuru na ko jibi xos dañuy laay rapide. rapide mooy super xanaa. waaw laay. naa ko ca laay rapide. waaye ndeysaan nabu yaa ngi noonu ci way yi. waaye neex na baax. muy premier premier jour na Fallou Ndiaye. waaw Fallou léegi mu jeex Fatim. bilaay léegi at mu jeex mais buur yàlla nañ ko fekkee jàmm. amiin da baax. feete koy laay na bu dañu door. bu suuf. ku yaa ngi dal de eh eh eh lu am takk takk mot ma. daanoogul eh lu am Fatim Fatim lu am. mbërum tànk la mbërum tànk la mbërum tànk la. waaye li mu def wóorul bu ñu la takkee du baax. mais buur. maa ngi teel naa neex Fatou. ah non teel naa neex. caxabal noonu da nga koy yóotu mënul sotti. oh là là du sotti du sotti. coche dari lay rapide. ay ca xës lan lay tànte mbarum tànk la Fatim tànk la tànk mbarum tànk la mbarum tànk la mbarum tànk lay rapide janvier fii ci e stade Iba Mar Diop mais buur ñu bëre nag Fatim non xale yaa ngi bëre sànq bëri nañ lu neex ñoom ñaar bëri nañ lu neex sànq man bëgg naa loolu Fatim da man la xalam demoon na bay neex bu mu ko dagg fa mu daggee moo dul yoon du yoon du yoon xasdani lay rapide mais buur la moon naa la bilay da baax maa waroo sama Fatim Sidi Jaxate wàcce na mbuur la baax wàcce na mbuur man daal nee naa ni promoteur yi mel na a ñoo bëri walaay ndeysaan keroog diggante bu Salil ak Léo bu raay la ñu fa bëre neex na Fatim mooy bëre nañ sa lu rëy waaye Sidi Jaxate dara lay rapide lay rapide na ko lay rapide na